cosaani Sénégambia mu di waxtaan mu ñu leen di jottali talaata bu nekk ci waxtu wi di xalaati rajo Sénégal ak rajo Gambia. waxtaan wi nii leen ko baaxoo nettali. ña ko jëli woon ca Sénégal di Thiam Diouf àndoon ak Cheikh Diallo fekk fa Ibrahima Mbengue ak Doudou Diego Diop ak Alioune Cissé ñu seq liggéey bi bi indi fi waxtaan yi jottali nañ leen waxtaan yi kilifa yu sakkan yàlla xeb dolli ni ngeen ko déggee ci waxtaan wi talaata bu nekk ci waxtu wi ki ñu semboon di waxtaan ak moom di Hadji Demba Lamine Diouf mu dinuy nettali cosaani Sénégambia fa mu soxe ko bi ci jamono ji indi nañu firnde yu bari ci lu ko indi ak it ni mu dollee dëgër ci jamono ji fi ñu ci amoon ak yéen foofu la ñoo delluwaat waaye lu jiitu loolu Haji Ousmane Seck
ni nga ko waxee la Mansour mbir mi daal li wax ci neex-neex ak li mu gudda gudda dara taxu koo jóg lu mooy di dëgëral di wéral di saxal ne Sénégambia mbir la moo xam ne kenn mënu koo wecci kenn mënu koo doyadal te ndokk bi ko kenn jéemut Sénégambia mooy ñaari réew yi le ñoo ooye Sénégal ak Gambia ni leen ko suñu xarit Demba Lamine Diouf alxaaji waxe ne Sénégal ñoo jël tur yi ñoo wax Séné Gambia jël Gambia ñi boole ko muy Gambia loolu la lu wér la réew a ngi moo xam ne seen ñaari nit yi dama ne ñoo nuroo diina moo xam lislaam moo xam muy chrétien lislaam ñi ko amee ci Gambia ak ñi ko amee ci Sénégal kenn mu leen a ràññee su fekkoon dañ buubu dajee ci beneen réew bu mooy Gambia wala Sénégal christianité ñi ko amee ci Sénégal ak ñi ko amee ci Gambia ñoom itam su fekkoon dañ leen buub yóbbu leen ci beneen réew nga daje fa ñoom doo leen mën a ràññee ñoo nuroo col moo xam coli sëriñ la moo xam coli kerceen la ñoo nuroo ay ñam ñoo bokk ni ñoo jëntee jabar ñoo bokk ni ñoo séye ñoo bokk ni ñoo demalante ñoo bokk ni ñoo waxee bon nag su fekkee ni ki mbir moomu la am na ñuy ut lu ko saxal indi waaju mel ni ki alhaji Demba Lamine mu indi ñu cosaani Sénégambia muy Sénégal ak Gambia maa yoon yëpp ñu di ko déglu dégg nañ ci moom xam-xam boo xam ne ca dëgg-dëgg kenn mënu koo contact wax la joo xam ne bi ñu ko indee ci yéen diisut dëngut dafa jub te leer bon nag Mansour xam naa ne ñu ñoo déglu ñu ngay pareeti pour dégg loo xam ne na leen jëriñ ni nga ko dégloo maak yow bon nag ñun ñëpp nañ leen bokk déglu te jëriñu.
jërëjëf Aji Ousmane Seck. kon ñu dellu ci aji Demba Lamine Diouf laaj ba ko Dudu Jéego Jóob laajoon ca bu jëkk ba nit ña nañu daan yore seeni gànnaay na gànnaaye meloon aji Demba Lamine Diouf wax ko bi nga xamee daan nañu ett ay bant di jël ay xeer di ko ñawal loolu yàggoon na ci lool ba ñëw ci ay dëkk yoo xam ni tudd na ko mu nekk ci réewum Gambie xëj na tur yooyu sax nekkatuñu waaye ñu dellu ca laajte ba aji Demba Lamine Diouf.
xalaat na ni yow da ngay xeex naka mu ko def ñu dem. ñaari nettali la ñu nettali benn ba nee nañu dañoo dem dal jàpp ndaw lu mag ñeenti nit boole ko ko mëri ngoone ñu dem seeti buur ba ca ndàmbalaanam la ndax booba buur itam nekkul koo xam ne que da nga di kër fekk ko mu jaaxaan ci ak ci garab mbaa ci àll dafa nekk ci biir ndàmbalaan loo xam ni dafa am lu ko sange ci ay tata ginnaaw loola dafa am ay nit ñu koy wattu ci buntam yëpp ci bunti pood yaag bunti tëbaag fa muy toogat am ñu koy déglu ne ca ginnaaw dëkk baax am ñoo xam ne bu ñu gisee mbooloo dugg ca biir di déglu ba xam lu xew ba loolu amee amari ngori amu fit ni xare bi néeg leen ma fi tànn lu mat nangami nit ñu ànd ak moom dem nuyu bëkk néeg yi ñu leen kajoore dooru ñëw ndax nangame ta ngi diwuñu garab dañoo bëgg a yegg ci buur bi wax ak moom e jolof it jàpp nañu ni ku gëj ci sa buur ba day noonu mu niiru tooñ sooy ñëw jàmm nga indi ñu dal leen di jox loxo entré leen indi leen ba yegg si leen ci ndàmbalaana buur bi bëkk ne ñi nga xam ne ñooy wattu buur bi ba ñu gisee ni ñii daal mel na ni jàmm la ñu indi moo tax ñu may leen yaatu ñu fekk buur ba ca fa mu nekkoon ñoom amari ngoone am na ñu mu àndal fekk buur ba fa mu nekkoon nu yóbbu moom ba noppi ni ko day kajoor lay nuyu mu jóg di jug tàng lool ni nag lu tax lu mat nangu metta ngi sama baat bi ne fi ngeen daa ko dëggal nan nga mu mel da ngeen koy weddi am da ngeen defoon ni du ma du ma daje ak yéen am da ngeen defoon du ma leen du ma jot ci yéen tey looloo tax ñu ñëw ca moom ñu ne ko waaw waaye kajoor nu yónni man nag kii nu indi mooy doomi laman paleen dëcc fu njóogu yaramam dafa xawoon a naqari waaye nu indi ko mu waxtaan sa yow léegi nag ñooñu àndoon ak Amari Ngoone ak bëkk ne yi nekkoon ak buur la ñoo ñaan bëkk ne yi ne léegi nag mu bàyyi la ak sunu doomi laman ji mu waxtaan yow li tax na mbir mi mën a am ñi àndoon ak laman li daa ñu àndoon Amari Ngoone ni nag buur ba nu bàyyi la ak doomi laman dëcc fu njóogu ji ah mu wax la li ko bàyyi waxoon nun nu may la tuuti looloo tax bëkk néeg yi génn ñooñu nga xam ne ñoo xayma xayma gi ñu daal di nekk diggante bëkk néeg yi ak buur ba gën a jege rek Amari Ngoone loolu nag a tax Amari Ngoone foofee mu doon wax ak lu ne fu li tàkk foofu la ko jàmboo ba wax nañu ni ba nga xamee ne war na ko ni kat góor gi nga ne teg suñu kaw dinaa ko tegg tey ndax yow tegoo ko fenn ndax yow lan nga yilife Kajoor lan nga yilife Bawol lan nga yilife Siin lan nga yilife Saalum dara amul ci la fi dañ dañ loolee nag ba buur ba meree te kàngam yoo sori ko bëkk ne yoo sori ko ba leneen fukk naa ñoo kenn jóg nag sori ko jéeg ci fu njóogu moomu dëj na ko jàkk bañ ko jamee nag mu bërbëri ñu daal di rëcciku ànd na ko Amari Ngoone nag génn Amari Ngoone daal di yegg si leen nañ génn ba ñu génnee la leen ne ah daal di naa maag leen furi fàkk nag xam naa ne fokk na amum ndax waaye nag na ngeen fànn li nu taxu na jóg def naa ko kenn moom dootu dudd mukk loolu nag a tax boo Amari Ngoone génnee garab daal leen ni ñëpp nag jot fekk nag ci dee bi ci danki mbooloo maa ngi fi teew mbooloo mi dal di kër kër yi naka ñu jéggi danki tuuti garab àndaase leen ajoor yi li tax ñu naan ajoor da yeewuteem mat naa wattu ñu dog wenn feen léeg-léeg nit yegg ci ñax mu ñu jal dugal ci aw jàkk ajoor bi daal di wax ne géere may maw jàkk day cëru si jog jàkk woo xam ne yaa ko fa dencoon ki nga ki dégg nga naa ko géere may maw jàkk ne seetu jàkk ci moom xamul lu géere may maw jàkk dëpp ko ko mu daanu kooka dee keneen naa ngaa si ko nga dëbb ko jàkk mu daanu te booba jàkka fi ne xeej amu fi fi te la muy te loolu booba kurpeñ ak jàkk ak dóorante rek la ñu amoon loolu la kajoor reye buur ba ca jolof ci lim bi wolof i tubaab yi werante nañ ci waaye am na daal bu bind ko ñu gën a saxal mooy mille cinq cent quarante neuf ci la ñu rey lene fuli fàkk kana ko rey Amari Ngoone Sobele ko rey booba bàyyam laman la woon ba mu jàll bi ko jolof di ko dab ca la ñu géere may moo jàkk wa jooju la ñu wàññee la jóge woon jolof di leen dab ba ñu ne ah léegi kat nun jolof yëgul xeex bi te kànga mi buur baa ngi bëgg a jeex nan bàyyi ñii nu dem nu seet suñu bopp loolu tax jolof daal di dellu gannaaw kajoor daal di engagé Amari Ngoone ba mu yegsee la mu njëkk a wax mooy bàyyi mu ne ko naa mu ne ko rey naa buur ba jolof paleen daal di bég lool bésub keroog jolof am nañu keroog lu leen naqari lool loolu nag mooy li nga xam ne moo dindi turu buur bay benn dëkk jolof keroog la xeetu tur yi ñuy bëgg yi dina di am ci la dameel soso ci la teey soso ci la bërsaalum soso ci la bursin soso dudu lii mooy ñaareelu leeral ci li ngeen ma doon laaj ma leeral leen yii mooy yi jiitu ci histoire Sénégal kon boog alaaji ba tey du ñu la mën a bàyyi de ndax sa yaram tàng na te ñu nit li nga ñoo wax sopp nañu ko déglu ndax xam-xam la bi nga ñu leeralee lii ci histoire bi ba wan ñu lu tax kajoor génn mook bawal ci buur ba jolof ca buur ba léegi nag li ñu lay laaj moo di lu doon damel lu doon teeñ lu doon bër saalum ak bër siin nan lañ leen daan fale ak suñu faloo nan lañu daan doxale
waaw léegi dudu turu buur ba sax na ci noppi ñun ci Sénégal yépp nag tey doomu dëkk Jolof Amari Ngoone doomi Ngoone Njaay jël laman demel dëcc fu njuugu xeex na ba loolu dañ tur wi nag kon day séddale dikk na ñoom ña gën a sori nag ñoom dañu wuyu ca tur wi waaye dañu ko woowee seen bopp Saalum dañoo woo buur Saalum bu siin dañoo woowee buur siin buurub siin bi léegi buurub Saalum bi léegi waaye Kajoor ñu bañ ko fàtte na mbir mi ñoom jëf ji lañu fab def ko muy turu waa ji ñu ne lu ñu wax Kajoor ni turu dameel kat mooy ci lu dammal yeetu buur wi ñu nu tegoon ndax dañuy bañ jëf ji réer dañoo dajaloo ca paleen ni léegi di jëf ju day nii yéene woon nañu mu am ci réew mi keneen ku ko defoon am nga cër ba kon war nañoo baax ba ki ko def nañ ko sàkkal ak xàmmikaay wala ab adresse wala ab pàttaliku doom ji ñuy wax Mari Ngoone mu màgg ci paleen la man yàgg fi lool nu nekkee ñoom mu toog ba tey mu demal na yetu buur ba jarafa nu nu koy tuddee nan ko seetal turu bopp turu woo xam ni day méngoo mbir mi ba ku ko tuddati doo fàtte mbir mi Kajoor wax nañu ni dañoo wax ni nan wax jëf ji def ko mu diw tur ki nu dammal yetu buur bi ki damm yet wi ñu texoon lépp mooy ki tu ki damm yet wi ñu ni kon nag dammkat bi damm yet wi mooy dammeel kooku moo indi turu dammeel ci paleen ba ñu ko bëggee def nag amari ngoon dane ah jomm naa nag di ci fu njógu sama bàyyi waaye ak ngoon jaay wàcc fi liggéey ma fi ba ma am ma taxaw lu tolloog lu ma xëy def ci soxla su bàyyi soxla woon du tax ma moom tiitar bi damaa bëgg ñu falal ma sama bàyyi mi demel teg turu ki dem nañu ko tuddee sama bàyyi mi ma jur ndax mu xam ne moo ko yeyoo ndax moo ma fi am ñu ni kon nag nanu fal dee ci fu njóogu la ma ñu dajaloo di bëgg a fal dee ci fu njóogu ñu ni nañuy def ñu ni lëf li nañ ko def ak seem li wolof di wax xumbeen te tubaab di ko wax feet xumbeen googu ñu ni kon nag nanu seet ñi bét te yor alal ci réew mi nag ku ne indi lëf nu def ko ci bés ba bés ba jëlu si ku nekk ñu kontaan loola ñu def ko muy lu ñuy fàttali ko bés bu ne alal jooju ñu laajoon baadoola ya muy nag ya ñu def leen leen sange su rëy tàbbal leen ca suba suñu xëyee rey nag nga ne nag jox ko nit ñi ñu lekk ci wata boor bi di naan ci puux mi waxtaan daf ca amoon wenn nag woo xam dañuy wax ne nagoowu faraw la woon nagu ñimewul woon mbooloo ba wutoon nañu bant bu rëy bu war a mat ñaari mètre genn wala war a diise fanweeri kilo yeew ci buum yeew ko ci béjjén ya ngir bëgg mu diisal ko ba du mën a daw daw bi wax ba bu ñu ko soxlaa jàpp-jàpp ko kere ba naa wa desee nag ci digga ca biir sànge sa kere ba ñu ko gëddee ba koorey nit ña dugg ci biir sànge sa nawa tiit naka mu tiit nag tëb bant ba waneelu waneelu ba mu waneelu buum nga attinu ko buum nga dagg bant ba moo jàll ci wàllaa fa ñu dañoon di ci fu njóogu di ko bëgg a seetal bu yeggee ñu fal ko bant booba moo daal ci lupp ba te yax ba ci biir te booba hôpital amu fi garab yi disparu amu fi pikir amu fi booba luñ daan faje mooy lu dagg metti metti metti metti suuf la ñuy faat saaf ko ba mu ñor xom ñu sutti ko ci dagg-dagg bu bees muy xam ba niru këriñ su ko defee la des ci biir deret di dootu doon mukk luy xasaw foofa day dee daal yow comme ab liggéey fuy mujj loolu lañ daan faje boobu damm-damm ab dagg-dagg ab damm-damm dañ daan fop bant dugal ca biir ba bi jaram amee ñu door fab jaram di tàbbal ca biir ba ba mu lant da ci la daan nëb nit ba dee te ca booba nag moo nëb ca tànk bi ci fu njuugu ba ba loolu mooy la ko rey ba jotuñu koo daali daali jëleen gënal waaye ba mu dee ñu ne ko nag léegi amari ngoone mbir mi leew na la sa baay rek nga bañoon di buur te du buur sa baay dee na léegi yaay buur kon nag fal nanu la ngay kii dem ma yetu buur wi ñu la tegoon loolu mooy indi turu dameel ci kajoor naka loolu am bawal ni kon nuy war na na waxtaan nun la ngóone njaay waree woon ci nun wàcc la mbaay taaloo fa mari ngóone kon su ko kajoor mënee fayal bor ba di ko takkal xam ni kaay gu ñu dul fàtte nun itam na sunu mag xalaat te jëli jamono mag ji am xel te séq laman ba nga xam ne mooy ni jaay amari ngóone ñu ni ko waaw nun itam ndax suñu waxee waxi kajoor day mel ni dañ leen di toppandoo nan wax suñu waxi bopp joo xam ne bi bu ëllëgee muy wéy continue ñu ni koy ci waxin ndax wala fi dafay am ñu ni lii danoo tëj am ñu ni lii danoo tiiñ te ñaari wax yi yëpp firi na ko lu la tiiñ ak lu la të lépp mooy lu la të daal loo mënul dara lu la tiiñ loo mënul dara la la firi lu la të loo mënul dara la firi bawal kajoor ni ki nu dammal yet wi nan ko ko wooyee kii dammkat bi mooy dammeel bawal ni ki nu teggi li nu tiiñoon li nu tëwoon nan ko wooye ki nu teggi teggi li nu tiiñoon loolu mu indi turu teey am na yeneen i version ci bawol waaye lii bokk na ci gën a siiw te ñu bal di ko nettali turu teeñ dal di am ca lambaay turu dameel dal di am ci kajoor dameel am kajoor teeñ am lambaay waaye sañ cëguñu nag ay pays kenn ku ci ne fa lamoon ba dëkkoon kat dem nga ba sañc nag tudd la indi nag turu pays yoo nag mu dikk naka loolu am saalum géej gi ni buur ba dee na ñoom nag comme dara xewewul fa ñoom dañoo dégg rek ne mbir mi am na ñu daal di fekk turu kañ ko ñu daan wuyu indil seen bopp moom ni kon nag suñu turu bopp turu am nañ ko tey nu nooy turu buuru bopp tey saalum daal di nekk seen buuru bopp ñu wooyee seen bopp bar saalum daal di am fokk la mën a faamu siin daal di wooyee seen bopp ñu daal di wooyee seen bopp buuru siin bi lii siin buur moom ko lii saalum buur moom ko ñoom ñooñee nag am na lu dox seen diggante loo xam ni laata buur siin ak buur saalum di am benn buur boole na siin ak saalum dana bokk ci ñu dee ko leeralal ndax boo légee ñu xame ci ba saalum be daan nduur moo daan bi siin ak saalum ñu boole leen moom ñaar kenn rek ca topp ñu ti ko wax génn nga dambe na siin ak saalum waaye gannaaw loolu ak léegi kenn dambeetul siin ak saalum waxumaa nag di boole kajoor ak bawol siin ak saalum jolof it moomatul siin ak saalum kajoor ak bawol dudu buur bi am na saalum buur bi am na siin damel am na mbul teñ am na làmbaay léegi nag buur da yaa ni kàngam buur ba ca jolof kat waxaguma la woon i kàngamam waaye nag danaa la wax nag ni am nay kàngam moom yoo xam ne nag ñoo koy jàppale piir ca bu jëkk ndax ci lu gën a rëy bërgeel ci bu ñi nga xam ne ñoo gën a jàppale buur la bokkuma ko gën a ni ma leen ko waxee ma ni waxuma gën a bokk ak buur ba jolof bu meeg tuubee suñu dee wut ku bokk ak buur ba ñooñu la waaye nag suñuy wax ko jàppale na buur ba mooy bërgeel ak bëllëg bërgeel ñang lay sant bëllëg ndaw lay sant paas lay dëkk ñooñu ci cër yi nga xam ne jàppale nañu buur ba jàppale goo xam ne gii daanaka ñuuxu nañu ci góor gi jur nañu buur téye nañu góor ca jolof cër yi ci des nag dóor a dikk yooyu cër nag daanaa ci dem ak yéen beneen yoon naka loolu am nag léegi buur yi am na dameel am na teeñ am na bersaalo am na bursi am na dameel ni ñu xëyeet nag amari ngoone ca xel ma ni paleen kër baay la feeg toxowuma bi duma mën a am sama ëttu bopp duma mën a am sama këllu bopp ëttu baay rek la ñuy wax kon nag yow mari jaax sama baay bi nga xam ni yaa xamoon ba ma juddoogul nii bu ma juddoon nii laay mel ma judd nga waxanteeg sama baay ba mu motti li war ma sama diggante tuddee ma la damaa bëgg nga sàkkal ma tey sama pénc ci bopp
jërëjëf Hadji Demba Lamine Diouf waaye ñu ngi laa ñaan nga noppale ko tuuti ñu bàyyi bokk yi ñu béggee ci alamari xalam ko di Abdoulaye Samb dimbali ko ci wàlli woy di Kiné Faye jërëjëf Abdoulaye Samba rawatina it ki na fay ci wàlli woy ci buum yi xalam boobu di alamari wala yela ñu dellu ci Hadji Demba Lamine Diouf looloo tax Amari Dia ni ko dinaa la ko defal si doom te dinaa la defal yu la jig daal di nag ni ko dinaa la bindalub téere danaa ko takk ci pitaxu mareem na nga wuti naaru góor topp ko mu naaw fu mu dal garab gu mu dal mbaa place bu mu dal jàppal place ba gaaf na pénc dana dees na fa mën a di pénc pitax moomu cere ko mën nga war a takkale téeréem ba jàpp naaru góor ya koy dab ñu di ko xool ñu di ko sàmm ñu ajaleel ko mu ni ñëw kenn jóg naaw ñaari laa fa ngi naaru góor ya daal la mu jëkk a def mooy fële mul nekk tey nga xam ne fa la demee di dëkk la ko dale cëmmari ngóore ba ci demee Samba Lawbe mbula nga di mbul rek ba fii mu nekk sax mbula ngay mbul saaxit daa nga fa santaare yaa nga fa jeexit yaa nga fa ak bula nga fa woon ci toolu ku ñuy wax ngas mi loo ba ca pitax ma dalee naaru góor yi wër ko taxaw def garab nga xàmmikaay di ko déglu ba mu naaw ñu def foofu xàmmikaay waaye baw ñu ko jëlee ko topp ci lewu kajoor wi ba mu naawaatee mu daw fu ñuy wax ngi gis ci ngi gis ga ñu sàmm ko ba mu naawaatee mu daal sugeer ca geer ga ñu toppaat ko ba mu naawaatee mu daal ca sandandoor ga fa xàndam nekk ma ko dugg ma jaari ñu ko sañ ñu topp ko ba mu naawaatee dal na làmbaay nag ca sàppub làmbaan seen ba tool ba téelam ba fa nu jaayi ngoone njaay ja dëkk mu dal fa fa naaru góor yi xool ko mu naawaat fa ñu bàyyi ko mu dem am na ñu wax ni dabi nañu ko ba mu dem yóob tëj ginnaaw farafeñe waaye am na ñu ni déedéet naaru góor yi yëgguñu boobu la bawal la ñu walbati ko bàyyi ko mu naaw dëkk yooyu fu ci ne demee sañ ci ko dëkk fa su gee rekk la li ngir di dëkk rekk dameel mbaa dayi dameel bu dameel bi dëkkee mbul ki muy tànn ci jigéen ñi muy njiital jigéen ñi te bokk moom yaar ndeyam lay doon mu ni ko demal dëkk sugeer mbaa mu di jigéen mu ni ko demal dëkk sugeer fu du loolu ngi gis dameel dëkk na fa fi la géej gi daan dëkk xam na ma ko du ku ma jaar ña ko sañ def ko pays boppam am na beneen dëkk fu ñuy wax bàttalu Maasamba Takku waaye foofa pi tax ma dellu fa ndax Maasamba Takku mooy taaw Amari Ngoone te dafa war a dëggal paleen loolu dafa war a dëggal mbul loolu tax loolu du daal ba mu dikkee nag mbul ci la ñu door a def nag organisé bi ndaw ba yi nga xam ne ñoo am nag mbul ci la ñu amee ndaw ba yi nag mujj na nag di yokku kuy demeel daal boo seetee ni ñii nga fi fekk suppi leen dana ñaaw waaye ñi nga àndaloon ba nga amagul soo dee buur fokk nga jéem leen a joxub cër nga kër ndombo dugal ko ci biir ndombo yoon mbaa di kër ndombo ber ko saxal ko sam sa doolee samp ca ba mu dëgër looloo tax ndombo yi bare bare bare bare bare ba war a mat lupp fanweeri ndombo yoo xam ne dañ daan wuyu dameel mbul naka loolu am ba wari loolu daal fay xew ba teeñaamee ca la mbaay am na ku bokk ak moom caraw mooy rakki teeñ moo teeñay bokk bàyyi mbaa ñu bokk sax ndey mu day ni moom juddu tolloog moom di ko wattale buur gi waaye day sës ci moom di ko taxawale boppam bokk la nag ci teey nag dëggu góor gi jaambur bi doole ji bari te ñëpp nangu njaamuram mooy jaraaf bawol su demee su teey ñàkkee moom la ñuy dénk baat ba moom la ñuy consulter di wax ak moom ba ba ñuy d'accord bu ñu d'accordee mooy soumettre jaambur ñi wax réew mi doog ci d'accord loolu mooy jaraaf njaambur mooy jaraaf bawol jara bawal loolu moo ko may mu am doole ji day noonu mën naa bokk teeñ bokk bu jige mën naa bañ a bokk teeñ bokk bu jige waaye da doon jaabu bu réew juddu rek te dëkk ci réew te doon na mbokk dañ koy doonante nag caro nag mooy rekk teeñ ci rii ci def teeñ dana ko séddale bay bayaar buurub ngoy buurub gaat saax-saax ñooñu ñëpp mbokki teen la ñuy doon ñu réew didd la ñuy doon dëkk ci réew mi war a moom sax réew mi ku ci am sax sabab di nga jur ku ku jekk ba moom réew mi yooyu ñooy kàngami teen ci làmbaay demee ci mujj jawriñ mbul ju mag ji jawriñ jigéen ñi sant jeng jogomaay ji sant géey barger mi sant jóob coono gànjool mi sant géey am na yeneen ndomb ahanaam waaye fa gànjool nekk ku ko yoral dameel ñu di la ñu di la tibal xorom si ñu di la xoromal ngay lekk lewu day ni gànjool ku ko yoral dameel mat nag ndomba geet ki nga xam ni am na lu yàgg dameel dooraam nettalikat yi wax nañu ni soxna suñuy wax Kumba Mbayaar Faal dameel sambalaw bi ko jur serew sàmboo ko jur bir ba faat naa ko jur bum nga daan naaw ngoone faal ko jur ma ko Kumba Jaar nii ma la wax ko jur nee na geet njaajaan njaay mi geet doon ca wàllam ca jolof boo demee la magul moom la ñu ko ne woon ginnaaw da ngaa gedd sa alali bàyyi téwóor laa def loxoy neen nan la dogal sa lewu bopp ñu sàkk bukki bi ñetti nawet ñu la ko taatam ni ko topp ko lu mu taalu daa yàqu ma fu ñuy wax nguñure ca ginnaaw sagata geet la ñu lakke bukki taatu bukki booba muy doo ba ci dex jii ci yej ji nga xam ne demee bu ma sa xeexi ci ngay wëgg di foofu la sóobee taatama ca dex ga mu fay ñu ni ko ñu ni ko fabal lii muy sa wàll yow mi gedd ci buuru njaay bi loolu muy turu barget barget am na lu yàgg dameel door a am loolu mooy njomba yi nga xam ni li ma lu ma leen lépp waaye lii lu réeréy la ci kajoor ndomb yi yu réeréy la yooyu mooy yi nga xam ne mu am loolu nag ba mu amee ci la saalum da nga xam ne ñoom ngoon njaay warewu fa xare ba boowewu fa waaye buur ba ñu doon wattu baatam deena ñu ni kon sunu buuru bopp la
jërëjëfati Hadji Demba Lamine Diouf sunu mbokk yi ñu déglu ngeen baal ñu wax waxtaan wi neex na naam waaye dinañu ko dagg foofu ci war a teqale ko Hadji Demba Lamine Diouf ak laajte yu am solo yi ko Doudou Diego Diop doon laaj Hadji Ousmane Seck defe naa ne jaadu na gannaaw boo xam ne sunu waxtu jot na ci ñu dog Hadji Demba Lamine Diouf.
waaw man soo dinañ ko dog ba beneen wik waxtaan wi neex na am na solo. waaye nag mënuñ ci woon a dugal suñu wax ju bari ndik waxtaan wi dafa fort trop te ñu bëggal nit ñi taataan ci seen noppa yi lu am solo
jërëjëf Hadji Ousmane Seck bon nag bokki déglukat yi cosaani seeni Gambia fii la ñoo texee ko ak yéen ba beneen talaata ci waxtu wi cosaani Sénégambia sunu waxtaan yi talaata bu nekk ci waxtu bi di xaraati rajo Sénégal ak rajo Gambia sunu mbokk yi ñëw déglu ci sunu waxtaan yi cosaani Sénégambia ñu ngi leen di dellu sargal ci waxtaan wi di leen dellu xamal ne waxtaan wi ñaari réew ko seq jëli ko ci Sénégal di Thiam Diouf àndoon ak Cheikhou Diallo indi ko fii fekkoon nañu fayit ibrahima mbeng programme producer ak dudu jéego diop muy laaj haji demba lamin diouf ni ngeen ko déggee ci sunu waxtaan yi wéy waxtaan yi nag jeexagul haji demba lamin diouf borom xam-xam la boo xam ni bi li ñu ko laaj xam na ko mu di cosaan mu ngi ñu mujj a nettali eh, réew yi digalu yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak it buur yi ni ñu defoon ba sanc suuf yi ci Sénégambia foofu la ñu ci yemoon ak ñun moom Haji Demba Lamine Diouf dinañ ko dellu dalee foofu waaye balaa ñoo dellu ci moom Haji Ousmane Seck ah ni nga ko waxee rek Mansour ah mbir mi mbir la moo xam ne ñi ko doon laaj te ki ñu ko laaj am na ci xam-xam boo xam ne jox na leen ko joxin wu rafet ñoom it ñu ngi koo jox ñu ngi koo jëriñoo di ko déglu ñun ñëpp te lépp loo xam ne yaa ngi ko cee dégg dina fekk muy loo xam ne dafa d'accord ak dëgg parce que ki la ñu koo wax béré bi mu ko jëlee tey na ni ñaari réew yi le di Sénégambia réew lañ yoo xam ne képp ku leen di jox xam-xam war ngaa góorgóorlu ba jox leen xam-xam boo xam ne dafa leer nit ñu leer a fi nekk te nit ku leer soo ko wax lu leer daf koo xam mbir yi le nga dégg mu duñu wax su fekkee am nañu ko xamoon ah bariwul dama foog ni ña ko xamoon bariwuñ fi fa mu ko jëlee ñooñale léegi ci réew mi duñu bari moom nag góorgóorlu na ba dem ci ko xam yile wala ñu xam yile mu laaj leen ko ñu jox ko ko mu takk ko nettali ñu ko nettali bu rafet bi le nga xam ne óor na ma ne ñun ñi la ko déglu ku ci jëloon tàng jël kayit di ko binda di nga am loo nettali say njaboot ëllëg soo demee Sénégal wala nga taxaw ci Gambia ne la óor ne réew mi la kat am nañ cosaan boo xam ne jar naa déglu jar naa waxtaanee jar naa denc pour ëllëg moom nag su ma toogee ci suñu rajo di ko déglu ni maa kontaanee óor na ma ne ñi nekk Sénégal noonu la ñu kontaanee li tax nag kontaante gi benn mooy kenn ki ci ñaari réew yi la bokk muy Sénégambia Sénégambia nag bon am nañ loo xam ne lu am njëriñ la xam nañ seen cosaan am nañ ku leen ko xamal nangu nañoo toog ci seen rajo di ko déglu te óor na ma ne mun nañu ko jëfoo ci seeni doom ak seeni sët Mansour
jërëjëf Haji Ousmane Seck bon nag dinañu dellu dal ci Haji Demba Lamine Diouf fi mu yemoon ak ñun gannaaw boo xamee ne xamal nañu pal yi nga xam ne ñoo fi nekkoon li indi woon tur yi diggante teeñ ak yu demee noonu delluwaat ci moom it ci suuf yi mu ñu waxoon ndax nettali woon nañu pittax moomu nga xam ne moo doon naaw di dal ci gox yi bi indil ñu di indi mbul ak làmbaay ak suuf yooyu nga xam ne ñoo fi nekkoon bon nag mbokk yi duñu jël seen waxtu lu may dellu soobu ci Haji Demba Lamine Diouf ci fi mu yemoon ak ñun alxaaji ñu daal def seen bopp barsaalum la ca gën a wér nag am na ku fa nekkoon lu tax ma ne la lamante na am ilibaan na sàll nekkoon na fa waaye tudd loon bër saalum daanaka tur lama la fa nekkoon buur baa ngi wuyoo ci mbégaan nduur moom mi dàmbi siin ak saalum moom nag moo xeex ak ilibaan moom it moo ko fa jële ba mu xamee daal léegi ku rey nit fa alalam lam moomoon yëpp laa ko moom it mbégaan daal di xeex ak ilibaan na ànd ak jigéenam ba xam kat yi ñii dañu ni ndumbe nduur ñii ni menge waaye lu ci mën a xew mbégaan ak jigéen ba daal ñoom ñaar ñoo xeex ilibaan ndax boobu ilibaan al islam lay doxal ci réew mi samp jàkk fa saasan ca wetu kawoon ilibaan nag gis jigéen bi ni ko xeex na maa moom juróom-ñaari xeex rëyuma ko nañ ci sàkk pexe ñu ni ay ca mu ni kon nag nan xëram ñu toog ba jant so mbégaan suppali ko jaan jigéen ba suppali ko muuf ba ilibaan na duggee ci jàkk ji julli ba sëlma jàll bi ko dellu si di sol dàll wa fekk mbégaan suppali ko na jaan dugg ca dàll wa naka muy yoxoos jaan di ni ko cappit mat ilibaan na sànni dàll wa ndim mbondi nga ci naka mu ko fab jigéen ba daal di suppali ko mu fëkk jaan ja ah ñu acca ulan du jabi ka muus ba fam na jaan ja musu ba bàyyi ko doon na ko reyal nekk ñoom ñaar ñoo bokk bokk ñu dem seen yoon loolaa yóbbu yi li baa naa laaxira mbegaan daal di doon barsaalam ñu daal koy bàkk mbegaan akum dundam makum dundam makum dundam makum dundam mbegaan akum dundam mu daal di doon barsaalam siin ak saalum gépp mu moom la bàkk waa nga jóge siin buur baa nga saalum booba loolu mooy li am naka loolu am saalum it naka ba saalum taxaw ah daal di sàkk nag rakkam bar ngay ba ndoom bay sëqee nag ci la gu mi kañ moor am ci la gu mi mandaa xam ci la bëllëm ndukk maanaam ndoom ba yooyu ñooy jàmbur ñuy ndaali seen doole dikk nuyu buur mu fay leen ñu sëyeen teeg moom ñu dogal leen seen ndombe tànk ñuy jàppale buur ba ku dàq bëllëg dàq bar ngay dàq ba saalum ku dàq bëllëg dàq bu mi kañ moor dàq bu ñu mandaa ci ba saalum nga jëm bar ngay nag rek ci buur ba la rek bu bala mbokkam lay doon buur bu ne day am ñu moom ndomba gi di bokk ak ñu moom mbokk yi ñu moom ndomba yi di jàmbur tey jàmbaar dinañu dem nag ba seen teg ñoom loolu mooy li nga xam ne sama gaañi tey leeralal naa leen histoire yi jëkk ci réew mi ba bu nu yàlla mayee jàmm ba nu dellu saat yi nu dolliwaat nag ci sunu xam-xam sunu kenn kàttanoo li nu xam waxu nu ni mooy dëgg waaye lii daal boo jëlee nañu ko ci nit ñu rëy ñu bokk ci réew mi ñu juddoo topp nit ñi topp koo xam ne bu ci xejoon dama leen di wax ni démb géer ñi amoon nañu xam-xam waaye géwél yi amoon nañu cër géer xam-xam lay am géwél cër ba xam-xam fekk ko ca cër la ñu lay jox ni la wattul lii lii di payam ngay wattu loola lu ca xew fekk la fa lu ca def nga bokk ca su loola jeexee bu ca nit ci ndesee koy bu bàyyee la ko cër la géwél amoon démb géer am xam-xam ndax nit ku ne xam na boppam géwél la dafa amoon cër lii daal Thiam Diouf yéen sama bokki Sénégal bi maa ngi bég ci dégg gi ma leen dégg ci waxtaan yi nga doon waxtaan ci gannaaw am na benn bés na ma sa def benn waxtaan bu dugg ci seen biir waxtaan yëggagunu ca waaye leeraloon naa leen ko keroog ndax dégg naa nga waxtaan benn bés ak Amadou Lamine Ba mi nga xam ni dafa sotti ci ma ba joxu da taxoon na ma am lu ma la waxoon loo xam ne dama ko waxoon ci rajo Sénégal pour rajo Gambie jot ci ñu dolli compté ko ci dég-dég waaye gisee moo ëpp doole tey kontaan naa trop ci sama jotaay bi yéen bi Sénégal bi dikkee ba ci sama néeg bi ngir dalul Demba Lamine li mu xam da koo laaj ay mag yu am xam-xam yu fekk baax a xam yu yeyoo xamale ma laaj leen ñu xamal ma lii ma am ci xol bu rafet bëggoo laay biir ci diggante ñaari état yi nga xam ni seeni borom dañoo nekk benn bëgg mbooloo mi nekk benn ba ñu boole seen mbir nii laa xamee lu jëkk li ba may yegg si ci nag li gën a jaxasoo ak Gambie ak Sénégal ma wax leen ci sama xam-xam ni mu gën a rafet
jërëjëf Hadji Demba Lamine Diouf dinañu bégalee bokk yi bu mi kora boo xam ne bii cosaan la ñi nga xam ne ay gerla war lañu bu ñu demaan ci àll bi bay ñibbi bu mi kora yi ñu leen daan tëggal ñuy fecc ñoom buur yooyu le buum bi ñu xamee ko tenklu kumba weccoo ku dégg baat bi di nga xam ne lii baati cosaan la ndax bareetul sax ci làkk soose tenkulu kumba weccoo ki ko tëgg moo di Hadji Jali Baye Konte ak turubam ñu déglu ko
anda barga hanim biadere kali ke janne nyem fana jang nyanjola gun nanjulo lo nyendi
Wayo tulasana le jenge jenge jenge tangul kumba jenge jenge jenge Sangam biru debala jenge jenge jenge tangul kumba jenge jenge jenge Thank you.
ase kusana le Jenge jenge jenge tengul kumare jenge jenge jenge
se kusana le jenge jenge jenge tengul kumare jenge jenge jenge
kati kelfa na nyangande kelfa ala ko mobbil kan wono se ko wasane bi jërëjëf Hadji Baye Konte eh, bala maa jàll ci Doudou Diego Diop Hadji Ousmane Seck ndax euh, buumi kora bi mus nga ko dégg masuma koo dégg bii buuma neex ki dégg-dégg ki la mooy nit koo xam ne ah, waruñoo sàgganee dara lu mu wax file parce que foog naa ne jawara sabari sax buumam la
waaw Hadji Baye Konte am na buum yu bari yu mu fent eh, ku mun a dekkali cosaan la ñi nga xam ne ay ñancoo la mu eh, ñooñu euh, gellawar yi eh, suñu demaan ci àll bi eh, ba jël seen sàngara ba dem cosaan ba ñibbisi eh, kora yi la ñu leen daan tëggal eh, ñuy jaayu bon nag waxtaan wu demee ni defe naa bu ñu ko ci tàbbalee ayul aayul maa ngi lay ndokkeel ci li nga indi nit ku cosaane ni le ci cosaani Sénégambia indi ko fi deful dara lu may dollee dëkkal mu ngi mel ni ki rek ndawal loo yokk ci togg
bon nag ma dellu ci Doudou Diego Diop fi mu emoon ak Hadji Demba Lamine Diouf Doudou alaaji dafa am loo xam ne dama la koy laaj farang xamuloo ci dara farang saba ak farang sànjaal
ñooñu loolu fële la yaa ngi may laaj histoire Saloum te dañuy door dugg ci mbir mi faran sabax ak faran sànjaal ñooñu duñu fii loola ba muy am sabax ak sànjaal la woon booba buur ba moo amoon leneen këleen fa jële nag boo demee sabax ak sànjaal danañu la man ni faran sabax moo di woon diw faran sànjaal bi mujj moo di woon diw waaye doolewul woon ci ñoom ay dog la woon kana leen fa jële ku ñuy wax sàmbuumaani ture moo rey faran sabax bara dawas rey faran sànjaal bu di jaxu boole ñaari réew boole sabax ak sànjaal loolu waaye bu njëkk sànjaal ñi sant géy te ba ma bay xeex ñu duggoon ca nga xam ne ci la gumba géy bokk mum saaroqi géy mum seeni géy moo dëkk sànjaal sabax it booba soose saako moom loolu ay soose la ñu woon soose yooyu nag booba daanaka euh, buur ba am na saalum sabax ak sànjaal bokk ci saalum bokk ci lewu dameen bokk ci lewu te faran sabax aw lew la woon ci saalum sànjaal aw lew la woon ci saalum ñuy am faran sabax muy seen jaraaf am faran sànjaal muy seen jaraaf buur bi dëkk kawoon sàmbuumaani ture ba mu duggee xalwa moo dindi luy faran sabax ci saalum dindi luy faran sànjaal ci saalum daal di ferang laaj ndax ba sëriñ sa dajee ndemeen ba ñu nee ma Seydou Aja sëriñ nañ gi ma ma soxla ñaan ca nañ gi sëriñ sa dajaloo jaal ko woo ma ba waato ñoom ma njaay ko reeja Siiku Jóob Sàmbuumaane ma ba joxu ak àndala buri daado ñoo fa dajee waxtaan ca ndemeen ni kat li sa li saalum ceddo def lakk dëkkub sëriñ bi rey sëriñ bi suñu jógul ci lii mën naa am bu ëllëgee daanu dem ba sëriñ dootu fenn fu ñu julli du na am loolu la nga taxoon sëriñ sa daje dem jaal ma ma ma soxna ñaan sëriñ nanji gi ma ñu rey jaal leen mélaas alaja xas nag daje ndemeen xasoo ñoom àndala buri daado mi sënd siise moo leen di négal ma indi leen jàmbaar ju fi meen mi yaatuwul te mu ñëwee xare te soogu ci dem indi leen maba ñu waatoo ndemeen tegub kaamil ci sir siru xexe bu weex ñëpp waat ñu ni ma ba noo ngi lay seedeel ne ginnaaw nangu ngaa jiitu nu topp ceew feet sa bal bi takkut kenn du feeñal xalaatam bu sa bal bi takkee nag lu waay mën dana ko def looloo taxoon ñuy waatoo ñu dem ren ba ci déwén sa sàmbumaane dégg ni ba léegi dara yënguwul looloo taxoon sàmbu meer ca gàddaay ga moo rey faransa sabax rey faransa njaal moom sàmbumaane Touré bàyyi ndari kanni seet kanni ak dembe penda xaraan ak maam nga dem penda xaraan ñooñu sàmboy seen bàyyi keroog ba mu ba loolu amee nag la sàmbu jóg ànd ak ma njaay ko rek ak Seexu Jóob dikk rey faransa sabax rey faransa njaal daal di toog ni moom de am na lu mu jàpp moom ab sëñ bu amee lu day ni ñaari leew mën na caa jàppal toog ba loolu amee la ma njaay xuréeja ak siixu jóg ànd ñoom ñaan ñaan ko liggéey attaque bu mu kañoor bu ñuy wax gumbaana wa ñi la am moo tax teeru taxu mbaa ba ngay dégg ca kañmoor kere ba leen fa sëriñ sa fekkee la ñu xeex ak gumbaana wa ñi la am ba dàq ko génne ko kañmoor ca bee meer ni jom nañu sëñ bu yelwaan dinu moom teen ba la muy xóot xóot ca bee dañ koy daanu ba mel ni santaare ku di kat daanu ci sa kaw morom ni jomb na sëriñ moom la keroog gumbaar afar kañ moot dikk nuyu ba saam samba la ba leb sukk si la dorob ci kawam ni ko sëriñ si laa xeexal juróom-ñetti fan kenn walu ma dàq nañu ma léegi nag bu ñu kañ moot ko dàq ci bët saalum nga jëm dama la ko yëgal si keroog samba la ba da ko tontu ni ko man day gumbaar du ma la tontu waruma laa wal yé ñaar ñoo bokk benn baay kenn ku ci nekk ñam nga kañ moot xañ naa la ko jox la ko nga bokk ñoom baay ba noppi may la soof jigéen kon koo jox sa kër bàyyi may la gàllawaat defal la la mu man jaayal sa bakkan bii sëriñ si wax ma dalul sëriñ si yalwaan si rek dina dàq gumbaan ni ko maa ngi dem awa ñu naan sama ndey dafa dëkk siin waaye bu dëkkoon ndukumaan bëlëb dana ma wallo bu dëkkoon mandat bu mi dana ma wallo bu dëkkoon ngay ba ngay dana ma wallo bu dëkkoon julool bun julool dana ma wallo bu dëkkoon jafe-jafe bun jafe dana ma wallo bu dëkkoon ci këli bi ci kaw ni di nga jóg waaye nag li sama ndey dëkk saalu siin moo tax aw ma ku ma wallu waaye xam nga ni ku dàq bu mi kañ mor ci bët saalu la jëm léegi nag maa ngi dem bu bu ma sëriñ si gisul ci sa kaw rek lañu jëm dañuy wëriñ dëdd nag ni ma ngay baalu ji siin looloo tax nag sàmbaloo ba takk ne ah loolu kat neexu la dégg waaye ni gën na fee naqaree gëm looloo tax nag sàmbaloo ba takk ci kële bi ci kawoon ànd ak tegi kawoon yi rek fekk sàmm ndaam kere rey sàmbu maane rey ma njaay xureeje rey dem penn xalaan rey maamu nga dem penn xalaan siiku jóob dem ba saalum jëllu ci kële bi ci kawoon ni xaw ma ñande waaye yelwaankat yooyu de dootuñu tax benn gelle war am lu ko naqari fekk maba dikkagul ba loolu amee nag la maba dégg ni sëriñ sa kat jase nañoo ceddo yooyu yàkkamti nañu te moom la ñu jiitaloon eh ñee rey nañu faran sabax rey faran saa jaar sàmboo def loolu toog ma njaay xureeja wujjeeg moom ndax gumbaana ma ñu laat bëggoon a téye kañ moor ba saalum fekk ko fa rey ma njaay xureeja rey sàmbu maane rey dem penn xalaat rey maam nga dem penn xalaat siixu jóob dem ah loola afaa dellu ca la mu nekkoon ceddo dellu ci seen tëgg ñu tëggoon loolu tax maba nag yëngu fekk boobu mu nga daabaale loolu ko taxawaat xarem bu jëkk xarem bu jëkk boobu nag lu ba mer mi amee ci la ma ba mere nag mer mi moom itam ñu ne sëriñ sa daje woon wax ak man suñu yàkkamtee ba bañ maa nekk def lii kat du tax ma yàkkam ba def lu wër waaye nag bu jot rek dinaa ko def ca la xalwa ja nga ko say xoma digoon xalwa ja am nañu waxoon dañu ko ne woon sàqum ñett maba noon na ko say xoma noon na maba soo duggee xalwa sàqum ñett soo ko mënee yëkkati sa bopp ba teg ko ci digg bopp attanoo ko sa bopp booye boo fital jaar ji di nga am li nga bëgg yëpp te doo ci dee waaye nag bu sàq bi déwut ci digg bopp kat boo wutul ci jaar ji ngay dee waaye ba sëriñ sa dee nag ca loxol ceddo ya ma ba mënatu la néeg nag sàq mi dem ci boppam ba ñu ko yëkkatee mu tollu dëndam rek ci la ne daal comme yëkkati naa ko mu tollu sa doon bu ma ko yóbbu ci sa bopp du wàññi rek loolu tax ma ba dugg ci jaar bi te déwén ni ba ñu xeexee ndaa ndaama rey sàmbu maa ni ca déwén sa la ma ba xeex ak sàmbalaw bi la tukko jël jóg ci kër moo waral xare boobu ma ba delloo sàmbalaw bi loolu mooy li nga xam ni faran sabax am ndomba la woon soo jógee fara feñe bala ngaa yëg ci kawoon ci këll bi foofu la sabax ne foofu la sànjaal nekk soo se saako moomoon sàmbuwoo ko suppi doonub sëriñ bu rey faran sabax rey faran sànjaal ñaari faran yii looloo leen waral waaye nag bër saaluma moomoon booba lii daal duudu ci faran sabax ak faran sànjaal kenn daa mun la wax faran sabax wala sànjaal te waxoo li tax ndax looloo jeexal sabax ak sànjaal faran sabax amatul ginnaaw sàmbu maane faran sànjaal amatul ginnaaw sàmbu maane ku ko mos a doon foofu la ñu la rey nga jeex sàmm toog dàbbe yëpp moo tax sabax ñu sant turé ba nekk léegi géwéle sant jéng mbub ji leen way sabax a ngoo foofaay sabax la ca wàllaay sànjaar lii duudu mooy li ma la mënoon a nettali tey jërëjëf Alaaji Demba Lamine yaakaar naa ni nag fii la ñu war di yam ak yow tey jërëjëf ba beneen
jërëjëf Alaaji Demba Lamine Diouf jërëjëfati Duudu Jéego Jóob ci laajte bu rafet bu am maanaa bi nga laaj Alaaji Demba Lamine Diouf ak moom it li mu la tontu rawatina sa laajte bu mu jëbi mbokk yi ni ngeen ko déggee sunu waxtaan ak aji Demba Lamine Diouf foofu la yem mel na ni ba nu ko doo rek léegi war naa toll ci ñett ba ci ñeneenti bés yu ay muy sottandiku xam-xamam bu rafet boobu ci mbiri cosaani Sénégambia Hadj Ousmane Seck léegi Mansour ni nga ko waxee la alaaji Demba Lamine Diouf ku mat a gërëm la li ñu ko doon laaj xam na ko jëlee na ko fu teey ndik man dama wax ne képp ku xamul fekkewu la soo ñëwee bugg a xam danga laaj ku fekkee woon te xam moom nag dem na ci ñu xamoon jox nañ ko lu teey wax nañu ko waxin wu rafet yéen a ngee dégg ci mujjante li waxam mu di ñu dëgëralal ne Sénégambia yàgg na fi da ngeen di gis barsaalum toog ca kawoon di ilif ci farang yi nga xam ne ñoo nekkoon sabax ak yi nekkoon sànjaal bon nga xam ne Sénégal ak Gambia mosu ñoo denc di nekk benn dafa am ñu ñu teqale woon te ndem teqale gu warul du dëgg du mën a sax sëñ Bamba dafa ne yónni leen yàgg lu yàgg dëgg la bon nag biñ ñëwee ba ci yàgg gi gindandikoo nañ xam ne ñun ñëpp benn lañ dañu réeroo woon waaye léegi nag gis nañ ne Sénégambia ni ñu ko ooyee moom la nit ñi benn lañ suuf si benn la xew-xew yi benn la diine ji benn la lu nekk benn la bon nag nañ leen doole góorgóorlu dimbale suñ ñaari kilifa yi le dimbale suñ ñaari rajo yi dimbale suñ ñaari réew yi ñu doole nekk benn di jëriñante di musalante di dimbalante doole xamante wasalaam.
bon nag bokk yi déglu cosaan yi Sénégambia fii la ñoo teqale kook yéen ci suñu waxtaan yi talaata bi tey ba beneen talaata ci waxtu wi ñu ngi leen di gërëm ñi doon waxtaan ak yéen di Hadj Demba Lamine Diouf di nettali ki ko doon laaj di Dudu Jéego Jóob